tey wala moom kéemaan la di ab bi fadlika yaa wali mu yaa sillata yaa xayra baraya baraya ah, baraya sa teraanga ji dafa bari di ah yow xam nga ni yaa ma war a dalal ci màggal gi ma di la bernde ah? teraanga teraanga rek koy faj ba ñuy waaj gàmmu Tiwaawan ñii nga defoon indi ma teraanga ju rëy te xam naa di ko yittewoo ci màggal te wallaay ndeysaan ah kon de fi ne mën na wax ni lépp mat na alhamdulilah kan rek ñu daal di door cant ah ay muxtaari sayidina xubil maxaadi wa ahlina wal walada biraasuman baarasani biraasuman يبارس المنتقما بارس من إذا طلبت من إلهي جلبا أكبر شرك ترانجا في لفك باخ